ñun askan bi moo ñu tax a jóg. Euh, man docteur laa ci kër euh, hôpital laa doon liggéey gis malade yi di ñëw à des stades mm. yi nga xam ne ne lu dul dañ leen di bunge. vers la mort mm. malheureusement. Mm. loolu moo tax ma engage wu dans le combat. Euh, pour xamal askan bi yee leen xamal leen lan mooy joxe cancer naka la ñuy def ba moytu signe yooyu le pour bañ a am cancer. loolu moom ma tax mu dugg ci ligue sénégalaise contre le cancer ba yàlla def ma nekk ci njiit donc pour dindi tabu cancer bi ragal bi combat yi ñuy def yépp ba yàlla jox ñu ci ndam euh, par exemple le traitement du cancer ku amul woon 3 millions wala 6 millions au Sénégal doo faju ci cancer mm-hmm. ñu dem ba am gratuité wu chimiothérapie bi mm-hmm. donc euh, ñu maintenir radiothérapie bi à euh, euh, cent cinquante mille bien que am na radiothérapie boobu le problème boobu am na ay problème am na ay malades yi nga xam ne ne temps yi ñu ngi jànkonteel. surtout Dantec bi ñu bi ñu bi ñu. Kër Massar voilà. Kër Massar weekend bi j'ai vu un élément ñu ngi wax seen matériel yi ñuy kii kan dara doxu ci. xam nga yooyu yëpp euh, combat bi dafa bari. Mm. donc foog ñu waxal askan bi. Mm-hmm. parce que xëy na ñoom amuñu voix. ah ku leen déglu ñi am cancer dañuy ragal a fo fësal seen yaram mhm. seen bopp parce que dañu ragal le camp de t on mhm. loolu moo tax jigéen ñi ko am seen jëkkër yi leen di abandonné c'est trop lâche bëri na fi bëri na mhm. na euh, euh, ñi am cancer u col ñoo gën a sonn parce que cancer u col euh, buntu buti tunjurukaay da ngay xëpp deret di génne ndox bu xasaw da ngay gis femme yooyu le seen waa famille yi dañ leen di abandonné elles sont reléguées au second rek comme fistule xool fistule ni ñuy abandonné ñu ko am xam nga dafa euh, am na weer bi ñu leen jagleel cancer buntu buntu ci njurukaay mais LISCA amul doole bi nga xam ne ne mun na def campagne juin vert un mois def campagne octobre rose un mois loolu moo tax ñun ju octobre bi dañ ci boole xeex cancer buntu buntu ci njurukaay comme association des sages-femmes d'État sont membres de la Ligue sénégalaise contre le cancer ñun dañuy utiliser sages-femmes d'État yi former leen capacité leen pour ñu mën a gën a dépister jigéen ñi fépp ci Sénégal mhm. donc LISCA euh, amuñu xëy na ay euh, représentants dans les régions parce que loolu mooy sañu point faible mhm. li ñu bëgg mooy fépp foo dem ci Sénégal nga am benn représentant wu LISCA mhm. mais fépp dina ñu def nañu trent 34 villes. Mm. ren dinañ ci yokkaat 5 euh, pour vraiment dem former ay sages-femmes d'État dépister cancer du col dépister cancer du sein donc balaay heure bi di jeex dinaa wax sama desitu programme excusez-moi mm. doyen. Mm. parce que c'est important ñun euh, première quinzaine bi Dakar la ñu yem. deuxième quinzaine bi nag mooy sañu décentralisation. Mm-hmm. Euh, le dimanche bi di kii ñu ngi def benn randonnée bu mag. où on attend mille personnes pour sensibiliser waxtaan ak askan bi lan mooy cancer ak lan moo koy joxe ak yooyu la après dañuy commencer ci dellu ci ay villes religieuses dinañu dellu Touba randonnée bi randonnée bi dimanche fan la euh, départ bi buntu Lix euh, Lisca Sacré-Cœur 3 mm-hmm. donc dinañu dem après Touba Tivaouane Thiès Mekhe et fin de l'année euh, euh, euh novembre ñu dem Kédougou Euh, dañuy am suñu partenaire yi nga xam ne ne ñoo ñuy sponsorisé. ñoom ñooy financé dépistage parce que dépistage xaalis la. soo nee jigéen ñi ñëw leen saytu seen bopp doo leen fay dërëm mais dafa am ku ko dékku. Mm-hmm. parce que suñu gisee ci yow bunge la dafa am ki ko dékku suñu gisee ci yow faj la dafa am ku ko dékku.